sant bu nduruwul tiitaru doonatul sant ma ne ko sant ak cant bu nduruwul tiitaru doonatul ak cant barki Sëriñ Bamba ak cant bu nduruwul tiitaru doonatul ak cant ak cant bu nduruwul tiitaru doonatul ak cant ajaratu Ngoy Fall génn na ajaratu Ngoy Fall génn na ajaratu Ngoy Fall génn na ci fajar gi yoor yooru màggal gi yoor yooru mais ajaratu ngoy faal lii li lii ëpp na ah lii ëpp na barke Serigne fi mu ne nii nee nañ jàngi alxuraan yi ba pare doog lekk. waaw bi tax ba si rey na pitax. bay mu dafa pitax yaa ngi gis naa ko mi ngi ne. gis naa gis naa lépp wane naa ko. wane naa ko ndox mi sax mi ngi nii xoolal ndox mi. ajaratu ngoy faal ak aski yàlla ndox mi. laa ilaha illa llah ay waay ay ah. bu sa yi nii. barki lekkat yi ay soowa ci ci nekk. doom day man lii ci laay. bu sa baa ngi nii ajaratu ngoy faal mi ngi ajaratu ngoy faal Omar mi ngi nii kaay kaay koy présenté bu sa bi xoolal ma naar naaru libaane yi wala naaru portugais yi naaru libaane ok barki Serigne Bamba ak bu doonul tiitaru rek doonatul ak cant alaaji askiya sëñ Tuubaa lim la defal yaa ngi koy fësal sëriñ Tuubaa bu la defalee da nga koy fësal sëriñ Tuubaa bu la teralee da koy wax sëriñ Tuubaa bu la teralee da koy wane sëriñ Tuubaa bu la dimbalee da ngay sant sëriñ Tuubaa bu la jàppalee da koy sant sëriñ Tuubaa dimbali na la waaye yaa koy sant taalibe sëriñ Saaliw bi sëriñ Tuubaa dimbali na la waaye yaa koy sant laa ilaha illallah barke Serigne Bamba kenn du moom ajaratu ngoy mu baax mi ajaratu ngoy faal mu yiw mi ajaratu ngoy faal mu tabe mi ah taalibi Serigne Touba baa ngi nii taalibi Serigne Touba baa ngi nii waaw bu la Serigne Touba teralee da nga koy fësal da ngay sant sant ñu dolli la waaw waaw supp baa ngi nii supp supp sécurité yaa ngi nii ñii ñooy sécurité kilifa yi nekk ci réew mi yëpp ñii foo dem ci àdduna fu baax fu ne fu baax fu ñoom nga fay fekk am nañ fulla am nañ fayda day génn wala ñu lay day xool fii ba pare doo ko xool dibi dibi bi fee nekk dibi ah day set après yéen ñëppay dugg lekk xaar leen rek yéen ñëppay dugg waaw waaw non li baar bi la baar baa ngi nii façon jus bu ne am na fi تاكي كيلا لاخ لاخ واو لتري امنا لب ديكوراسيون مي بو جيخي داني دولي امنا لون دنت دوم امنا لون دنت يا اله الا الله بارك سيرج دوم ندخ ماغي ني ندخ مي ندف اجرات غوي فال اك اسكيا مي ني اك الاجي اسكيا ندخ مي سين فوتو لا سين فوتو Eh, tey màggal gi màggal gi màggal gi ku sant ñu dolli la ajaratu ngoy faal santati na ku sant ñu dolli la alaaji askati alaaji askiya ku sant ñu dolli la ajaratu ngoy faal santati ku sant ñu dolli la alaaji askiya santati waa tey lii lan la sa màggal mat na sëkk mu ko màggal gi mat na kare mbaye xam nga ni ki attanu ma sansem yi man moo tax bari doole mais mais mais mais li kenn attanu bi wa bàyyi sa bopp bàyyi yàlla nee na ngir yàlla nee na ku la cee nga ceeb ku la ceewul mandul moom waaye bu topp kenn nee na yàlla bu dee loxo yaa koy ci loxo ba kii ba koy ci loxo nee nit ci noppam rek la may ñëpp a ko am aywa. biñ de kii wax nga dëgg ñu ngi sant yàlla bu baax na nga sant yàlla bu baax jàppoon nañu la nee na ku la toll dina daal rek la may ñëpp a ko am aywa. biñ de kii wax nga dëgg ñu ngi sant yàlla bu baax na nga sant yàlla bu baax jàppoon nañu la nee na ku la toll dina daal. barki si si jaaju moom nee na ku la song dina daanu nee na ku la sonn dina na saltige Maodo Ngom nee na moo ko wax wax bu wér nee na jetewu la ay fleur nit rek la mayewu ngir da ko am day wax billahi wax nga dëgg ni ngi sant yàlla bu baax na nga sant yàlla bu baax jàppoon nañu la nee na ku barki si si jaaju nañ nee na ku la song dina daanu nee saltige Maodo Ngom nee moo ko wax wax bu wér. la goo xamante ni ak fayda goo xamante ni nee na ragaluñu kenn dara soxlaanuñu dara ñun lu dul ki ñu jàpp rek ba yàlla tax ku ñu jàpp ci yow voyage ki yaa jàpp nañu këram amul fa sens interdit waxtu wu ko neex la fa dugg waxtu wu ko neex la o soxna Ngoy mi ci kanamu kilifa wax sa kanamu kilifa daa yomb nee na tey mooy bis bu njëkk bu wax ci kanamu kilifaam kii nee na mi ngi ra daw raw ngant bu baax wasalaamaaleykum daaw ku yónnee ñaari kàddu boo ko ajortu Ngoy Fall ndey di sëriñ seexu maam maam toog faal yow bu ne li nga ne ma léegi bu ne du baax na na bokk yaa ko wax te yi nga yoon da ne sang bu baax bi toog tubaarikàlla ak Maodo Malick mi toog ngo la ilaha illallah Thank you. si waaye sëriñ mën a koy jéem bokkul léegi léegi aw ma ci moom sago déedéet déedéet sant rek santal ba doyal santal santal ba mu neex la santal ba mu neex la. sëñ Saliou Mbacké daal di koy jooyoo rafetlu lépp jooy ne xam nañu ko lu duniyaa lu leen demee waaw kay loolu mu njëriñ la yaay ubbi njàng mi ci sama xas dëgg di wakkaan yaakaar naa mi ngi bëgg a yàgg ñetti at ci ren at mu ñoo koy door ñu ngi nañ ko taxawee téeméeri at yu tànn leen sëñ Askia Touré ñu ngi lay ñaanal baax saa moom it ñu ngi koy ñaanal bu baax saa borom guddal ak fanam lépp murit gi la gënal ay cëram ci barke xasaay kuy sant Serigne Touba ñu wane mel ni kuy a taaru ñu àggale ci suba ba léegi ñu ngi ci njàngum xasida mi ak alquran suñu askiya soññe ci insisté lool ci ñu taxawu njàng mi te bu ñu jàng ñu dimbalu ñu ngir jëmmi xam ne xasida yemul ak dara kon ñi nga xam ne ñoo fi teew te defar rek tax leen a jóg ñanga saar na xam ne suñu askiya dafa soññe ci njàngum xasida ñanga saar wax da koo ñor lool dama ni sànq waxal jëf bi nii xuloo ku ñëw jëf ngay faral. maa loolu bay sàmm ku li ma jëf mooy sama waa ji dama ni jëf ak xuloo bi nii werante ku ñëw jëf ngay faral. bu jëf jotee nga jëf sama waa ji may teral tubarkalla njëriñ moo di maaloo ba sàmm. nga baaxee dafa yàgg de baax gi maman Touré. tubarkalla macha allah jëf ak xuloo. waaye baax dafa yàgg waaye sëñ Tuubaa dafa ñëw gën. ngir itam daal ak jiw itam daal koo ci woo ni maa lobee sama maam def ko baax bi da ngaa gan man bas bari bagage maam. laa ilaaha illallah. ay waay Samb. lu baax sa jikko la. jërëjëf boo ne santal. nó gọi là hay nó gọi Sentel, sentel, sentel. जगते Thank you. the right.